mbokk sama gaa TV mbokk internet di mana di New di leen di leen wax ni ñu ngi ci Saladel 8e édition waaye tey tahu dama taxaw fii ma taxaw box la waaye réew la ndax dama ñëw taxaw box ba nga xam Gambia ñoo fi nekk ndax gis ngeen nak yi ci ginnaaw demoon nañ fi Gambia ci salon Gampras eh, tey nag waa Gambia ñëw nañ delloo si ñëkkal waa Sénégal kilifa gi ciyaar nuyu naa la Cissé Dia waaw di nuyu suma mbokki élevore yëpp waaw di nuyu président Uh, Samil Jahate eh? uh-huh. bu Adel hmm. waaw di nuyu sama Presiden yi nekk Gambi uh-huh. Presiden Ibrahima Majalo, uh-huh. Presiden Muhammad Kante hmm. ak Presiden Aliou Lo hmm. bu Samaji Association. Masya allah waaw. tey nga ñëw. non ban ban bezeri sb saho champion genetics waaye tey ñëwuma si Situri bezeri sb saho champion genetics tey dama ñëw si da Gambia. Gambia ak éleveurs yu Gambia yëpp. Uh-huh. moom laa ñëwee pour represent da Gambia. macha allah loolu lu am solo la euh, tey euh, li nga def dafa rafet parce que Sénégal ak Gambie dafa nekk benn dëkk. Euh, gis ngeen seen salon ba ba ñu ba ñëwee ngeen teral ñu yaatal ñu mu nekk élevage bu neex tey lan nan nga gisee salon bi. waaw salon bi macha allah niveau bi macha allah lu doon expect uh-huh. loolu leen fi fekka uh-huh. niveau bi kawe na xari maturité ne baax na. box yoo rombaleeg da ngaa ne waaw c'est bon understand na waaye nag kenn demut Gambie des gannaaw waaw parce que tey mun naa la fii nii bu amee téeméeri box ah si si première dix bi Gambie na si waaw so sant yàlla daal waaw te gis na ni euh, gis na ni li def liggéey bu am solo ci élevage na cent yu bëri léegi mi ngi waaw loolu dëgg la xar yi nga indi rek ginnaa ni ginnaa ko ay sama batoñe ak ñel. waaw batoñe bi moo xam nga Cheikh Diop bi. waaw waaw kii nii si booy Galoya. waaw waaw yaa ngi gis kële Abdou Fall bi la. waaw kii nii bi. moom bi principal maal bi di Gental Mara. waaw moom la waaw. fële nële yan fa am ak huit koo xam seti. booy séeréer la ak Aïssa uh-huh. waaw ok macha kon euh, gis naa ni daal euh, tey ni nga def dafa rek mais tey nan nga euh, fan nga toll yow ci liggéeyu élevage yéen waa bi ak nan ngeen ko bëgg a waaw nun bugale comme saa ji nga femelle yoo gis bi ak mâle bi waaw élevage yi Gambia daanaka lu si ëpp doole uh-huh. yëpp niveau bii la nekk uh-huh. waa ngi soo ñu la liggéey pour jën ko yóbbu si kanam waaw buga nen daal képp koo xam ne éleveur nga biir Gambie rek loo amee sa géeta rek nekk saaw xeeti fumier yi ak maal yi nii. Uh-huh. waaw macha allah. Hmm. tey yow nga nekkoon bitim réew jékki-jékki ñëw def fi élevage biir Gambie. waaw ba ngi nekkee léegi nan nga ko giddee est-ce que nekk na loo xam ni gëm nga ni mën na laa yokk. noo lii yor na ma ba pare parce que boo xoolee bu ma si duggee ba ba léegi rëccuwu ma ko. Hmm. dama si dugga ak advice yi suma coach hmm. ku ñu ooyee Ibrahima Mbenga kooku moo ma xamal xar yu baax yi nii. yaa ngi understand so ma si duggee ba léegi. si commencement bi man maa yore woon xar waaye sa yii nii xar ñoo yore seen boppa suma doom seen école bi. xar yaa ko lay fay. Uh-huh. di ñoo dépassé seen boppa daal so macha allah. rëccu wu ma ko rëccu woo ko. tey euh, yow gambi nga jógee ñëw fii. waaw Gambie boo boo jógee Gambie ñëw. trajet bi nan lay demee noo indee xari yi dina métti wala du na tuuti. métti na tuuti waaye boo gisee mu métti sax. parce que douane yu ci yoon bi ñoo amé xol yu bon ñeena ñi ñoo soxor bo rombé dañu bëgg nga jox leen dara mbaté ñu né xari du ndam ya nga loolu lak mo jafal yoon bi waye apart from that mom yoon bi mom baax na baax na c'est bon ok kon kañ ngeen départé gambia ñun ñu ngi départ won gambia kañ la on est tard ñu agsi fi on the fourth quatre si seven thirty si suba si. Ah, waaw so daanaka ngoon bee guddi si yëpp da ko daw. da nga daw waaw. nga àgg fi comme euh, ça veut dire que da ngeen a euh, camion ngeen jël mu départ jiitu la. wala ci non non yëpp si leen dugga. ah leen dugga waaw ñun kañ moom. oto bu xari nekk rek dañoo ànd ak xari ñëw ak suma <laughs> soxna bi waaw. Oh, waaw yéen a ànd ak xari ñëw. ñëw. macha mais mais douane yi nag war nañoo bàyyi xel xam ne élevage bi te Sénégal bu invité Gambie Gambie ji war a ñëw war nañoo xam ne loolu ah ñoo ko bokk. waaw ñu yombal leen waaw ñoom ah, am na ñu baax ñoo xam ne xam nañ loolu. waaye dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ difficile. Hmm. même seen morom yi duwaañ yi bu ñu leen ñaan ngir yàlla pour ñu bàyyi xar yi sax. dañoo soxor. waaw te nag ne xar yi amul pépa xar yi yëpp am pépa te ñoom ñëpp xam nañ ne si foire lañ jëm. waaye moo noonu rek. yàlla baax na yàlla baax na. Gamparaas fu mu toll Gamparaas. waaw Gamparaas kañ macha allah fu mu nekk nii. Ah, ñu le xalaat di waxtaan si yëfi beneen foire onastaar kan? so ñu le dinaa organise kam place bi waaw pour mun a tëg a foire bu xam ne moo raw foire bu ñu tëggoon. waaw kon tey looy tëjee rek noo gisee sunu box xam nga ne lii lu no gite ene way dakar wa ene wasi dakar kay masala niveau moko fekka ni c'est bon te xamna ene bori yepp nga liggey pour jeun ko yobu ci kaw ci kanam hmm. way nak ene bori gambi tam niveau bi nga neka ha. fofu lañ bëgg di sun bop ñun ñepp inshallah wa te bu neexé yalla di nañ fa aga parce que gis nga flag bi ha. drapeau bi ci ha. kaw ci kanam la inshallah yes tay euh abou bam fa ñëw jël na ben femelle fofu de waaw bu rafet xar yi am yooyu bàyyi wala naaw xar yi nag fu mu nekk nii ñoo sonal si jantal maara. Uh-huh. Uh, ak tënga bu ndaw bi fële ne la. Ah. waaye wax dëgg yàlla nag bëgguñ see bëgguñ koo bàyyi fii nii. Uh. parce que am nañ liggéey bu bari pour daf Gambie. Ah, waaw waaw ah, am nañ liggéey seen liggéey jeexagut. waaw ñu ngi ko bëgg a jël bàyyi ko waaw pareeguñ si. waaw si daal pareeguñ si Gambia pareeguñ si. waaw mm-hmm. non Jental Mara moom daa doy waar moom. waaw waaye nag yàlla dafa def mu nekk géniteur boo xam ne am na ndey am na baay. am na menstruation te xale bu ndaw la. 28 ah, mois la am. macha allah so xale bu ndaw la. moom foo jëlee woon yow. ah foo jëlee ci kan. bon ñu ko jëlee woon si Youssou John. waaw waaw tuuti am ñaata mois. ah boo noonu mu ngi amoon about vingt vingt quatre. foog naa loolu la am na woon. ok ok oh, oh, mu ngeen ko jëli. waaw waaw si ngeen jël. am na ay doom yu ba. non doom ah, weer bii la ñu commencé di wàcca ah. waaw bu neexee yàlla ñu ñaan yàlla rek. ñu fekk ko ñu ñëpp si jaama. macha allah waaw parce que maal bu mun doom la. ah macha allah kii kañ bu doom yi commencé di wàcca ah. Gambia ko kooku damay bu bu wàccee damay ñëw seet si leen. waaw amul you are welcome to come and join us. production Gambia. waaw euh, euh, il faut que ma ñëw ba Gambie. xool ko waaw ah, gars yaa ngi koo xaar de. Sénégal yaa ngi koo xaar <laughs> Gambia yaa ngi koo xaar waaw. waaw jaajëf ana madame kontaan naa ci moom. waaw madame mu ngi fi. Euh, nuroo la bi. waaw couple bi ngeen def tey ci cérémonie bi. non xam nga man ku ma xam xam ne man dama jiital suma première dame. mooy yoon man dama dama la moo suma yëpp. Eh, dama ko nopp waaw. soo non non tey moom dama. mën a nuróole ba ma ñëwee gis ne ba ma ñëwee gis ne kontaan. waaw dëgg la noonu la sax noonu la. xam nga moom dafa jàpp suma élevage bu baax. ba pare jàpp si élevage si Gambie bu baax. waaw jox ma numéro bi. waaw numéro bi is 250 30 30. encore moo suñu numéro WhatsApp. Ah. waaw. fan la ci Gambie. Gambie ñu ngi Batakunku. ok waaw waaye léegi nu ma tëjee dama bugg a gërëm éleveurs yi Gambie yëpp. wax leen ne ñu góorgóorlu ñun ñëpp ñu def suñu xol yi benn nen liggéey suñu élevage war a xam nen ko war a xamuñ ko waaw di gërëm suma jabar waaw Hélène Balde waaw moom dafa nekk soxna soo xam ne dafa taxaw suma élevage ak élevage yi Gambie waaw moom lu mu bëgg a mooy ñun ñëpp ñu nekk benn te lu ma wax suma mbokki éleveurs yi Gambie mooy ah. nen góor ñu def suñ xol yi ah. benn ñu xaacandoo dóorandoor parce que sun élevage ci kaw ci kanam li moo important Wow. ngeen traay la ñu góorgóoru maa ngi gërëm suma coach tab Ibrahima Mbenga ah. Wow, moom bu ma xamal xar yu baax yi. ok waaw c' bon kon kontaan nañ. waaw kon ma la dinaa kontaan Seydou Seydou di ñaan yàlla rek eh, jantal Mara wàcce ay doom yu rafet man ñëw mën a gaam bi seetaan ko. xool xool eh, ko jërëjëf waaw amiin kon nag di daje ba beneen yoon. merci merci kontaan nañ jawaa gaam bi waaw loolu dinaa kontaan kontaan nañ trop si seen teewaay bi fii